tontóoro bu gëdee soo fi jógee fu ñu jëm ñun ku ñuy am comme président liggéey bi rafet na gis nañu say jaloore fi ñu jëlee fi ñu indi jaaraama moom président jaaxle nañ waaru nañ ci sa décision bi dañu gisul dañu xamul ku la tànn ci biir géew gis-gis ñun de bëgg nañ la bëgg nañ la du changé président gàcce ngalaama ñun de bëgg nañ la bëgg nañ la du changé président gàcce ngalaama Sëriñ Fallu Mbàkke transitaire chéri madame Mbàkke arrière billaay yaa gore yaa bëgg président ànd bi rafet na métti na nekk nekk jeune xale bu ndaw di liggéey rassembler ay jeunes yu loolu métti na mais nag loo gis base la liggéey la dañoo liggéeyal président Macky Sall président Macky Sall da ko jar El Hadj da ko jar El Hadj dafa nekk koo xam ne dafa nekk biir Fatick di def lu jégg gis na li mu def njaañaay barke démb nekk fii tamit di liggéeyal di liggéey ñu ñaan président nag mu gëstu suñu waa ji président na gisu suñu waa ji loolu la ñuy ñaan na gisu suñu waa ji li may wax président mooy que président message bi may lancer jàppale Alla Souley ndax gis naa ne bu jàppale Alla Souley jàppale na Fatick ndax Alla dafa nekk koo xam ne Fatick la nekk di liggéeyal président Macky Sall mu ngi fiy def doolem di fi def li mu mën président maa koy lancé mu jàppale Alla Souley na jàppale Alla Souley bu jàppale Alla Souley xam naa ne ñu jeunes yi dinañ ci gis suñu bopp. Euh, ñun depuis bi ñu annoncé arrivé président de la République ci Fatick amul benn jeune amul benn femme amul benn charge bu toog bu nelaw ku ci nekk fi nga nekk yaa ngi def li nga mën. yaa ngi seeti nit ñi yaa ngi wax nit ñi pour que président de la république su ñëwee Fatick ñu xam ne Fatick la dëkk ñu xam ne Fatick feefam la ñu xam ne Fatick yëpp bëgg nañ ko tey tey lañ ko gën a bëgg te tey lañ gën a bëgg mu nekk seen doom tey lañ gën a bëgg mu nekk président de la république. Euh, ñu ngi leen ñu sant ñëpp nag ñu sant ñëpp parce que tey ku gis lii. la jeunesse les sages les femmes ñëpp ñëw nañ ko El Hadj Souley ñeneen yi incha allah ñu ngi ci yoon di waaja ñëw pour que woon président de la république El Hadj lu ne def na ko Fatick lu ne def na ko Fatick te moom lañ bëgg moom lañ choisir donc euh, xale yi sax moom lañ ko woowee mooy le roi de la mobilisation parce que chaque événement chaque activité mu ngi woo ñëpp mu ngi woo Fatick Fatick yëpp ñu ngi wane seen satisfaction seen bëgg seen cofeel ci El Hadj Souleymane Diouf donc tey bu ñu wax en terme de bilan mën nañu wax ne satisfaction totale lañ ci am parce que Fatick moom lañ bëgg Fatick moom la ñuy topp wane nañ ko encore une fois donc euh, ñu ngi leen di sant bu baax di leen remercier pour cette belle mobilisation tey sama xol sedd na amul sa awma sax les moo ku ci nekk fi nga nekk secteur bu nekk mooy les onze quartiers les treize quartiers de Fatick ñëw nañ mobiliser wu ñëw massivement pour woon Fatick pour woon président de la République El ag Souleye mooy suñu leader El Hadj Souleymane la ñu choisir moom rek la ñuy topp jërëjëf jërëjëf